média lañ comme ni ma ko waxee woon sànq euh, comme toujours ah li ñuy jot ci CV moom euh, daanaka bëri na. Mhm. et je pense que le plus intéressant mooy que recruteurs yi ñu ngi ñuy contacter xam nga ñoom seen bopp bëgg ñu jàllale seen annonce. ñu recruter donc euh, pour aujourd'hui on a le CV de Ndeye Kodou Diagne. donc Ndeye Kodou Diagne a eu son dernier diplôme de en 2012 un master en banque finance assurance à ITCOM donc pour. expérience professionnelle du 23 novembre 2011 au 24 décembre 2011, stage professionnel à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du de formation sur la théorie et la pratique de la des entreprises de femmes et de jeunes. Attestation du 7 octobre 2010 au 12 stage professionnel à Société Générale de Banque du Sénégal, SGBS, les Sénégalais de l'extérieur, novembre, décembre 2009, janvier 2010, c'est-à-dire novembre-décembre 2009 à janvier 2010. Bah, je vais l'appeler pour lui demander euh, que ça voudrait dire. Stage professionnel la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Donc pour la contacter, euh, son portable le 77 443 70 euh, ou par courriel, donc par mail à Kodou avec K 2000 yahoo.fr. Ensuite, nous avons le CV de Elage Malik Sek. Donc, euh, pour son dernier diplôme, c'est en 2012-2013, un Master 1 en gestion des ressources humaines à l'Institut de commerce et de management ISCOM. expérience professionnelle 19 juin 2013 au 6 janvier 2014 stage à la direction des ressources humaines du centre hospitalier en tant qu'assistant du DRH 7 février au 6 mars 2013 Stage à la de Banque du Sénégal, SGBS, en tant que caissier et de clientèle. Contact. <laughs> Furieux. Mais c'est un stage pas cher. mois pas cher. Contact téléphone 77 donc acha doo bàyyi sama oh, recruteur bi toog concentré wu ni jël numéro bi donc 77 508 52 55 ou par mail malik 4500 excusez-moi je reprends Malick. 45 2002. collègue at yahoo point fr. ak yow. arobase. <laughs> Ah, euh, yahoo point fr. waa <laughs> xew merci Pape Cheikh. bi <laughs> internet bi doog a xew lañ ko doon wax de. non loolu après dañ siy ñëw ak suñu ak suñu kii euh, tic mu expliqué ñu at bi peut-être fan la at bi. Eh, at dafa xew bi. waaw dañu rey. yaa ko xewee noonu boobu laa ko doon bëggoon wax. moom rek moo c'est un réflexe en fait. dama que da nga koy wax. waaw kañ nga ko wax. démb parce que génération donc ñoo bokk langage. démb génération Pape Cheikh. Eh, <laughs> alors donc euh, Pape on a reçu euh, beaucoup d'offres d'emploi aussi mm-hmm. donc euh, il y a une société donc mm-hmm. euh, de la place. Je lis l'offre comme elle a été envoyée. Bonjour, nous sommes un holding français dans le cadre de l'activité de notre chaîne de boulangerie. Au Sénégal, nous cherchons un boulanger qualifié avec une très bonne expérience professionnelle. La personne peut nous contacter par mail. Donc vous prenez bien note, c'est la baguette tout collé. l a b a g tonton Mag ku tudd Blasé di ko def c'est un Blasé. tey ñu ci bind. loolu déggoon ko de. dafa maa wóorul woon nag. c'est un Blasé. ñoo fi defe mburu. lakkatu mburu la de. boppam mburu bi boo ko xoolee rek xam ni lekk. man Paris. ak wala lakk mburu Paris. tonton Mag Paris. macha allah damay tonton Mag sama tonton. ndeysaan. tey lakk mburu. bisous. <laughs> donc par mail Ibrahima euh, la baguette de Paris comme vous l'entendez comme sur l'écran mm. arobase hotmail.fr ou Ibrahima arobase g3bsécurité.com mm. alors vous pouvez également leur les contacter au 77 325 56 49 donc Pape c'est tout ce que nous avons aujourd'hui comme, offre d'emploi euh, nous allons revenir euh, dans la semaine avec euh, d'autres offres d'emploi. On en a beaucoup. Mhm. Donc euh, moi, je vous dis tout simplement, euh, tenez-vous prêts. Et... Cherchez du travail. Job, Parce que plein job. Yeah. damay laaj ndax envoyé waat na la ko. waaw Bijou kooku rectifié na ko je pense que seetaan nañu démb. et que rectifié na ko yónnee wu ñu waat beneen. waaw xam na ni que jardin d'enfance. donc jardin d'enfance ci diplôme am yi. déedéet. est-ce que. non 1987 ko demain dinañu 87 boole ci. Euh, jardin d'enfance dinañu lire annonce am ci Job euh, Job bi merci beaucoup Kia. Euh, pour ces infos et puis ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoo amagul liggéey te am ay diplômes yu ci war mm-hmm. euh, am euh, liggéey na ñëpp jóg jopp parce que Sénégal fi mu toll loolu la soxla